asalaamaaleykum euh, Mouhamadou Mounirou Sy directeur général bu BSDA euh, ñu ngi leen di gërëm di leen ndokkeel di leen euh, souhaiter une bonne heureuse année di sant yàlla ci gàmmu gi nga xamante ni Seydil Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu moo ñu ko baaxee ci mbaaxu yàlla ndax tey bu ñuy màggal guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca aaya ba ko yàlla waxe ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman julli boobu yàlla ak malaayika yi di julli ci Seydina Muhammad yàlla ñaan ñu julli ci moom julli googu du julli këpp këppal du julli sëgg ak siggi mais julli màggal la ndax ñu roy ko ndax yàlla moo ne laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana moom dong laa leen roy la moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam te nit ki balaa nga koy roy danga koy xam Maodo nag ci gàmmam googu lay wane lan mooy yonente bi jikkoom yi ngir ñun ñu mën ko roy ëllëg mel ni moom moo tax moom sallallahu alayhi wasallam Euh, nekk na koo xamante ni euh, daanaka mbind la rek bu yàlla dënk tëgg ci alxuraan solal ko jëmm nit muy yonent bi moo tax Sayyidatuna Aïcha bi ñu ko laajee ni ko sallallahu alayhi mooy kan mu ni mooy alxuraan buy dox Maodo nag euh, boo xoolee thème bi mooy xam goo xamante ni dañ koy jëfe ngir lépp lu ñu mébét yàlla sottal ko nit ki lu mu xamul du ci taxaw te Maodo mooy ki nga xamante ni lépp lu mu xam bind na ko te lépp lu mu bind itam jëfe na ko. loolu moo tax ñu sant gërëm di ñaan yàlla at mii ñu teeru tombe gàmmu yàlla defal ñu ci ndam ci daraje sallallahu alayhi ci barke sëriñ Babacar si barke seen Hadj Malick